musuma wedd lu may may xaalis musuma wedd lu may may musuma am wedd dara dara yàlla xam na kon nag ki nga xam ne nag eh, daf maa féete foo xam ne fii mën naa mën naa ne féete wu fa sax ñu ñu ñu xëy ci loolu dafa yendu kon am na lu ma ambal am na lu ma denc te it waaw eh, wóor na ma ne loolu mooy moo moo gën a néew ci li ma defal bañ a takk dara te te sama mbir mu di ko mu di ko defal waaye la gën la ci gën a am solo mooy may ma di ko ñaan mu di ma may may wax mu di ma may. te kooku moom moom ci sikki sakk. waxuma ko xanaa eh, toog nii rek di di ñaan sax di ko waaye lu ma tax a dugg sama nekk. loolu kenn mënu loolu loolu kenn mënu ci dara moom. foofu foofu foofu ku fi yegg. looy takk ak naan ay ay ay ay fas ak ak ak ah, weddi wu ma nag weddi wu ma ñi ñi defee sunguf ak wekk yi weddi wu ma leen sama yoon newul ñoom waaye alxuraan mi nga xam ne xam naa ne boo ko jëfandikoo sax mu doon dëgg. <laughs> sax ñeme wu ma ko jëfandikoo. ñeme wu ma ndax damay damay damay bañ a def benn benn lijjanti dara lu lu may yokk wala lu may kii suñ boroom dafa ne damaa xeeb li may defal. mu mu mu kii mu mu koy waaw am na ne mu sanctionné waaw mën naa am koo xam ne kii moom moom lépp di la defal lim lay defal nga xeeb ko di wut leneen mu ne leen gannaaw léegi li ma lay defal da nga ko xeeb. ma bàyyil ma téye ko. te bàyyi laag loolu nga yaakaar ne moom. moom bu ko defee nag nga nga sànku. yàlla fu mu fu mu fu muy ba yàgg mu bàyyi la. tàkk nga. waaw moo tax. yéen daal na ngeen góorgóorlu gis naa seen doxin. gëm ngeen seen tubaab gëm ngeen seen tool bëgg ngeen ma. murit mi mu leen boole loolu it yéen a koy topp ñu ngi ko war a toppee euh, baax na euh, maa ngi leen di ñaanal bu baax yàlla loolu leen a jàppale sàmm leen itam ba fi ngeen bëgg a yegg ci lu baax ak xéewal ci àdduna ak alaaxira ngeen am